nii nii nii mais gis nga nag sëñ bi gars yi li ñuy bëgg a def dafa yomb Sonko dañuy Sonko rebelle la nga ne non du rebelle ñu Sonko kon alal terroriste yi yorewu ko ñu Sonko du waxkatu dëgg nga ne non Sonko li muy wax pourtant dëgg la ñu ne kon Sonko li muy woote gëmu ko dafa bëgg a falu rek nguur la bëgg nga ne non pourtant wanewul loolu muy woote gëm gëm na ko pourtant ñoo noo Sonko dafa bëgg jigéen nee noo pourtant Sonko li ko xale bu jigéen bi waxal du dëgg ñun noo Sonko atlas ak la mooy quatre vingt da cee bëggoon lekk nga ne non non pourtant euh, famille boobu liñ wax wane na ne Sonko yàlla loon defal lekk ko fa ñaa xam nga li ma lay wax Sonko lii so nga ne nga non non ñu ne ah yow yaa ngi faral Sonko bi mhm. kii rebel la da ngay nangu léegi faral ma Sonko kon léegi damay nangu ne rebel la la kii li ñu wax du dëgg maanaam nit ñi li ñu bëgg a def la war a bàyyi man Sonko Macky Sall laa yemale ak ku ñoom dañuy ñëw bëgg jël benn doomu aadama teg ko ci jàpp ko ñii ko jaagu liise ñii ko jaagu liise Sonko billaahi wallaahi tallaahi man damay toog ba mu yàgg dama ko yërëm ah, mais moom moo nangu dugg si langue politique. mais xaar mais lii mais ku dugg ci langue politique bu ne politique depuis les indépendances politique Sénégal nii la. non non depuis les indépendances musul gis ku ñuy def li def Sonko musul am musul ko gis xoolal ma jabal Diagne ñu ngi wan Sonko maa ngi gis tey ci suba mu naan day envoyé Mody Niang ab audio naan ko waxal ko Ousmane Sonko bu ma tuddee euh, xaw ma lan di menacé waatee ah? ma jambal ñoom ñi xoolal li ñu ma jambal lu mu wan Sonko ci at yi lépp lu xam loo xam ne dafa bon wala ko wax as gor dañuy jël di ko wax ah, buñ ko waxee léegi ñu faral sonko mooy ñu ñëw naan loolu dëgg yow da ngay wax sa jéggal ma ko wax wax joo xam ne nuñ ko waxee sax nu ma ko mën wax bëgguma wax fen wax lu la neex loo xam ne yow li koy wax xam nga ne waxoo bu Cheikh Bara ñëwee ne mu wax du dëgg mu ne ñoo xool ko sonko lay faral loolu mooy faral sonko donc. léegi ma yow gis nga ma jambal ma jambal wër na dëkk bépp ne moom du fa xam ay information ci Sonko ñu jógee Sonko damay wax ak moom am na ko jógee Sonko ko ma wax nangam jóge ci yow am Sonko am na lu mu loo xam ne gis nga ci sa bopp nga dem te moo di ñaa ngay dem di audio yi moo di ñu jógee Sonko ñoom ñoo xam mais ñoom ñoo bi ñu jox ko Sonko an moo di ñaa comme Sonko sa xarit la xaw ma lan ah

borom def ki so pare mom rek mom lu mu wax rek borom xel yi ñom xam nañ lu mu bëgg wax lan la waaw ku sénégalais aussi xam nga lu mu bëgg wax muy waaj waaj yi jamono ji ki ni Ousmane Sonko mii jamono ji sénégalais xam nga la mooy seen problème ñom nee nañ Ousmane Sonko dafa dëggu Ousmane Sonko dafa dëgër Ousmane Sonko dafa radical waaw Ousmane Sonko amul caaxaan gars yi loolu la du wax loolu mooy problème mu sénégalais yi jamono ji ak Ousmane Sonko moo tax man tout le temps damay wax ne senegal dafa nekk réew boo xamante ne gars yi parewuñu parewul pour dem te boo parewul pour dem nag dara du la ko jaral waaye da ngay toog di seetaan as ñu koy def di ko wax di ko tëj di ko jaay doole. après am na sax ay ay ay ay rappeur <laughs> ay ancien sax rappeur laa wax di toj balaa may toj rappeur yi parce que rappeur yi tamit ñu ngi def seen liggéey waaw mais ancien rappeur laay wër Matar la Kakuraar moom boo waxee rek bu waa ji jógee rek mu jóg man dama xamul lan la ko gars yi lan la ko waa ji waaw moom war nañu wax tamit quoi en fait moo ko waa ji ban problème lañu am waaw parce que man dama seetlu loolu quoi Matar Matar la Kakuraar waaw di wax ne gars ñu déglu. Ousmane Sonko mu sell comme ni ko gars di waxee président mouvement pasteur discours am bi gars wax ne discours bi nag gars yi ne Ousmane Sonko se rebelle ñu ne Ousmane Sonko se rebelle appel à l'insurrection et assume déloger assume déloger Macky Sall au palais waaw lors de son live d'hier lundi à la cité Ousmane Sonko a encore une fois appelé à l'insurrection et affirme qu'il assume. Je ne sais pas insurrection ou autre, je l'assume, a-t-il testé ne crachant certainement pas sur un mar Marsbis. Le leader de PASTEF a affirmé haut et fort parce que monde monde, français Nous sommes la français parce que man moom mu comme mu leeraat leen ma waxaat leen ko man man man politique bu Cheikh Anta Diop laay la laa bokk man français bi leer na ak leerul comme dégg naa ko dégguma ko man lijjantiw ma loolu man olof laa waaw olof moo ëpp si li ñuy làkk kon nañ jël làkk olof def ko langue nationale man foofu ànd naa seeg Ousmane Sonko Ousmane Sonko mu nekkee président dina ma defal loolu nañ si bàyyi xel gaa yi maanaam dañoo ne sama waa ji Ousmane Ousmane day woote fitna ak taal réew si dëkk bi waaw loolu la gars yi wax loolu la gars yi tiitre journalistes yi les journalistes yéen bi nga xamante ne nekkeewu leen si réew mi lu mooy manipuler seen peuple tiital seen peuple jaxase seen peuple du dama nit yi ngeen ne ngeen agression dafa am te cas yi fi jot a am yëpp ay ñu doon xeex la mooy bu sita bi ñu doon xeex rayante deuxième bi Fatou Kiné beneen bi vol scooter hmm? ba tey amaguñu grand banditisme kon affaire yi rombagul lu ñoom inoo doon def kon gars yi Sénégal ñoo ko moom ñoo ko bokk kon gars yi ñu déglu Ousmane Sonko mu sell mi gars mu wax comme li gars yi bañ a dégg Ousmane Sonko mu sell mi waxal Ousmane. moo taxoon ñu ne nañ def live bu gàtt bi. ngir waxtaan ak yéen parce que dañoo toll ci jamono joo xam ne jamono ju doy la pour suñu réew Sénégal muy jamono joo xam ne mën nañ fi jóge réew mi jël yoon bu baax ba faw waaye mën nañ fi jóge mu nërmelu ba faw te lépp mi ngi dépendre ci taxawaay bi kenn ku nekk ci ñun sénégalais waxuma militant waxuma partisan waxuma leader politique waaye man sénégalais laay waxal fi mu ah. la kon mbaa Ousmane Sonko la yoonu kenn nekku sama xalaat nag laay wax te sama chaîne YouTube laa koy defee na leer ah leader politique moy dem sa sam place ak lan lay am ci mbir mi waxuma militant bi nga xamne mom dafa sey ci mbir mi ba jeex ci waye dañu tollu ci waxtu bo xamne kep koy sénégalais rek na nga xamni li am ci fan yi di ñew li am ci wér yi di ñew dina déterminer sa nekkin ak sa place ci réew mi waye ci aduna bi ci at yu bëree bëree bëri yi nga xamne dina ñew ci kanam mbokk yi li xew moy Macky Sall neena yewi askan wi du ci election yi bu ñuy teunk wax ji rek moy Macky Sall mom ak administration. wax ji ah li gaaroon appel à l'insurrection yeb deglu len neena Macky Sall mo ne yewi askan wi du bokk ci election yi gaay gaay lu mu bëgg ñu deglu Ousmane Sonko way gaay di baña degg ne tëll ñu ne dam na gis nga tay lepp luñ la mënta wax seen nit ak ci ku mu doon yow sa bop dama nga xolal sa bop nga deglul sa bop ba xam ba ngay juger wala ba ngay wax nga wax deng bu baax lu mu wax mooy sénégalais rek na nga xamni ni am ci fan yi di ñew li am ci weer yi di ñew dina déterminer sa nekkin ak euh, sa place ci réew mi waaye ci àdduna bi ci at yu bëree bëri nga xam ne dina ñëw ci kanam mbokk yi li xew mooy Macky Sall nee na yeewi askan wi direk, bokk ci élection yi bu ñuy tënk wax ji rek mooy Macky Sall moom ak administration dañoo décider te teguñu ko ci yoon teguñu ko ci li nga xam ne moom lañu xam ci cosaanu élection waaye ragal gi mu ragal ak li ko sondage yi jox mu xam ne bu élection yi demee jaar yoon rawatina yeewi askan wi yaatal géew gi ba ànd ak geneen coalition boo xam ne it coalition bu am doole la muy wàllu mu gis ni bu ñu taxawalee élection yi ñu mu war a jaare amul fenn fu mu mun a jaar moom ba gañee mu ne dina jaar ci administration en attendant ñuy xam nag lu justice di wax ndax xam ngeen ni conseil constitutionnel tey ba fii ak tey minuit war na àttu waa àddu ci li nga xam ne mooy recours yi fa yi ñu déposé ci tableau mu ne fi mu toll nii tembe dina ko jaarale ci administration jaarale ko ci ki ñuy wax commissaire Abdou Aziz Sarr waaye boobu bettu ma mu jaarale ko ci ki ñuy wax commissaire Ndiaye ak ku ñuy wax monsieur ñaw dafa am solo parce que Sénégal dafa jot nit bu def ñu wax ni mooma parce que du ñu dëkk ci réew mi dafa jot Sénégal nit ku def ñu wax ne mooma kon gars yi Hmm? gars déglu leen Ousmane Sonko. Hmm. ba pare dem toog ne jàpp seen ñàmbur mel ni bokkuñu si déedéet dafa jot ñuy identifier ñi nga xam ne ñooy taal réew mi ci teguñu ko ci dara dul seen bakkan ak. poñ poñetu àjjuma yu ñu leen di jox ak post boo xam ne boo ko seetee ba ci biir sax amul solo ndax poste fonction publique kese la mu ngi ko jaarale ci ministre de l'intérieur nga xam ne mooy Antoine Diome boobu it ma ndax ñaare ñi nga xam ne dañoo jàpp ni dañoo am une revanche su prendre sur leur propre histoire ils sont prêts à tout pour ay poste ak ay rôle li may wax ñi xam-xam nañu mu ne ko da koy jaarale ci ñooñu gannaaw bi mu forcingé élection bi mu fi toogee léegi sénégalais yu bari bari bari bari gëm nañ ni Macky Sall musul gagné élection lu wessu 2012 ci bopom la ca des ay mbokum la waye est ce que dañu continuer di sétane mu nekk ci loolu est ce que tey war nañu nangu Macky Sall imposé ñu mom liste ñi nga xamné dafa worok yoon dafa violé yoon ñeneen violé yoon ñu dàq seen liste boobu tey mënuñoo bokk te doorul tey bu leen fàttali deux mille dix neuf éliminé nañ fi ay candidats teg ko ci parrainage deux mille vingt deux bi éliminé nañu ay par ay candidats teg ko ci parrainage lan moo war a tax moom Macky Sall ak ñi mu àndal gannaaw bi ñu jalgatee yoon ci parrainage ñu ne faw ñu jàllale seen dossier. moo tax ñi wax naan nañu ut solution nañu dajale nit ñi ñu waxtaan ut solution bàyyi ñëpp ñu ànd ñu dem loolu du wax parce que li Macky Sall def moom ak coalition am keneen ku ko defoon génn nañ ne ca coow du am lan moo waral moom su doonee moom ñu nekk faw tey ñu jàllale ko parce que am nañu gëm ni élection warul mun a am Sénégal sans Benno Bokk Yaakaar loolu mooy lan Benno Bokk Yaakaar coalition la comme ñeneen ñi ñu nekkee coalition bu jalgate yoon dañ koy jënd ci élection bi ñu ci jënd ci élection bi ak benno bokk yaakaar mooy ñoom mi wi ñoom li ñoo accéléré far gaay téye leen liñ doon daandalee gaay jamono bu njëkk ba di kale gaay yi tey moo leen dab kale leen waaw nekk maanaam yéene ba du ba doon yéene nit ñi tay ñom ñoo ñom ñoo nekk fofu ci néegu yene wo non ñu do yene gaay deug leen Ousmane bu baax muy wax ki nga ne lay woote instruction day woote gaay yéen da nga répondre rek. su bëree ba bëri dañoo bind dem justice ne d'accord accord ma bu ko defee conseil constitutionnel wax lan moo tax moom Macky Sall ñu ne tey forcément coalition bi dinañ jël dinañ jàll ci élection bi ba pare wëlbatiku ne dañuy galgal yeneen élection yeneen candidat yeneen coalition bi duñ dem élection bi. ci lu teguwul ci yoon duma ma ci débat technique yëpp juriste yi wax nañ ci ñaari fan yi weesu constitutionnaliste yi wax nañ ci spécialiste électo euh, élection wax nañ ci léegi léegi conférence des wax na ci moo tax wax ju bëri yi jaru ko xam ngeen lu fi des mooy laaj bi may laaj kenn ku nekk ci Sénégal ndax d'accord nga Macky Sall dem moom dong ci élection gagné assemblée nationale samp ndëndëm toogaat fi vingt ans wala trente ans moom ak famiyam loolu mooy question bi gars yi question la posé question la posé Ousmane Sonko discours am mu commencé ba léegi am ah, wooteegul fitna gars yi gars yi fitna daa bëgg a mi rebelle la ah noonu Sonko mu na ne la gars yi di wax loolu léegi nag moom mooy wax nii ngeen di dégg est-ce que la wax est question la posée dafa laaj. du ma dugg ci débat technique yëpp juriste yi wax nañ ci ñaari fan yi weesu constitutionnaliste yi wax nañ ci spécialiste électo euh, élection wax nañ ci léegi léegi conférence yi wax na ci moo tax wax ju bëri yi jaru ko xam ngeen lu fi des. mooy laaj gi may laaj kenn ku nekk ci Sénégal ndax d'accord nga Macky Sall dem moom dong ci élection gagné assemblée nationale samp ndëndëm pour toogaat fi vingt ans wala trente ans moom ak famiyam loolu mooy question bi loolu nag man moom man man moom Ousmane Ousmane man moom sa xel na daal ci man sa xel na daal ci man quoi man d'accorduma comme ni ma ko defee nii nag képp ku d'accordul ñu ngi lay wax ne la demal nga defee ko noonu plateforme boo mënti am muy Facebook YouTube lépp loo mënti am muy sa compte def fa vidéo nga ne Ousmane Sonko man d'accord ma bu fekkee d'accord nga d'accord nga dem tamit nga ne ko sawaa ji Ousmane man d'accorduma man moom d'accord naa sawaay li mu wax nanguma loolu kon Ousmane di continuer léegi moom lépp dafay leer lu xew rek man dinaa ñëw jox sama point de balaa kenn di dem fële naan maa yóbbu maanaam askan bi baatu askan bi xam nga koy dégg boo ñàkkee sens ñu yóbbu la yóbbu sax problème dem ñaxtu la ko fa te doo ko yëg moo waral des fois sax xam nga yenn problème yi di am si diggante yenn yi parce que da ngay dem fee di wax ndekete ñi ngay xuloon xeexal la ñoo la tane c'est ça l'objectif kon bàyyi leen xel sëñ bi dafa laajte poser question. du mbirum Khalifa Sall du mbirum Déthié Fall du mbirum Abdou Sy du mbirum Cheikh euh, sëñ Cheikh sëñ euh, du mbirum képp koo xam ne yaa ngi ci coalition du mbirum coalition Wallu waaye mbirum kenn ku ci Sénégal yi yow taximan bi xam nga li ngay daj yow infirmier bi xam nga li ngay daj yow jàngalekat bi xam nga li ngay daj yow euh, ménagère bi xam nga li ngay daj yow transporteur bi xam nga li ngay yow étudiant bi xam nga li ngay daj yow mi ne ci diaspora bi sax xam nga li ngay daj ndax bëgg ngaa dellu te mënoo dellu si ngir yorin bu ñaaw ñu am chance historique jëlaat suñu réew moomaat suñu bopp parce que loolu mooy enjeu buñ ko fàtte ko nag parce que léeg ñu wéeral ñu ci ay wax ku leen laaj na projet c'est quoi le projet le projet mooy moom sa bopp moom sa koom-koom moom sa réew Ousmane Sonko ban projet la am pour Sénégal nga ne ko moom sa bopp moom sa koom-koom moom sa réew déglu nga li ma lay wax moom sa bopp moom sa koom-koom sa réew loolu mooy projet bi gars yi c'est quoi projet répète moom sa bopp moom sa koom-koom moom sa réew eh amul solo nit ñi topp ci médiatisation bi dañu fàtte ni coow li nekkul foofu jamono ji ñuy toog naan diw wax na lii diw def na lii diw dugg na si Macky Sall ngay jaayaat suñu gaz gis ngeen tey nee nañu deux mille vingt trois yi jamono bu mu amee rek am na leen lu am na lu am ñu ngi jàllale waaw saa yu leen bol bloqué fii rek ñu ngi jàllale bor loolu la leen bëgg a wax décembre deux mille vingt trois la ñuy commencé opposition bi c'est-à-dire bu ko desee weer pour mu abal ñu ci réew mi te ma ngi cay waxtaan gis nañ ni mu jaayee woon contrat yu ndikk yi ngi xam nañu ñu ko raw wala nu ko yées la yor lay jaayee li ci loolu mooy enjeu yi tey yow mbokk mi est-ce que pare nga pour seetaan loolu est-ce que pare nga pour seetaan réew mi. non parewuma de man man man parewuma pour seetaan réew mi kon Ousmane. na jamono joo xam ne dénk nañ leen suñu réew dénk leen suñu kaaraange jox leen police jox leen gendarmerie jox leen armée jox leen renseignement généraux jox leen lépp ñu wël di ko loolu yépp di xool nu ñuy comploter ay opposant nu ñuy xeexee opposant nu ñuy tëjee opposant nu ñuy tëjee activist ba tey ñuy rendi ay nit ci mbedd mi comme ni ñuy rendee ginaar nga gis ko moom bu bu nit faatoo Maroc wala nit accident France mu bind condoléance waaye doo ko dégg mu àddu mukk mu ñu rendee ab sénégalais fii wala bitim réew ci anam yoo xam ne kenn mënu koo layal tey loolu mooy enjeu bi est-ce que yéen Sénégal est-ce que yow mii may waxtaanal pare nga pour loolu laaj bi nag yéen ñëpp am ngeen tontom moo tax wax ju bëri yi jaratu ko dama leen yàgg wax ni Macky Sall faw ñu xeex ak moom mu jóge ci Macky Sall bi fi jóge ci jàmm parce que xamul jàmm ab baadoola boo ko ajee cib njoowal di nga ko bëgg a wàcce mu jafe wax naa leen Macky Sall jàmmarloo moo ko fiy jële parce que xamul beneen langage loolu nag askan moo ko mën du mbirum benn nit du mbirum ñaari nit moo tax li ñu wax dana ñu daje ak askan wi may woo bépp sénégalais nag jiital jiital ci militants yi ak sympathisants yi waaye bépp sénégalais buñ ko wootee ak foo mu ci nekk ci Sénégal na dox jëm Dakar ñu dajale deux cent mille personnes lu ko raw dégg naa léegi conférence yi leader ñu dañuy waxtaan expliquer weesu nañu phase explication ay décision lañuy jël foofu décision bu ñu fa jël rek. ñu bokk ñun ñëpp jël dinañ ko appliquer bu ñu jëlee décision dañuy dox dem palé jëlé fa Macky Sall dinañu dox palé jëlé fa Macky Sall ci ni wala ci nële fofu lañu ñu toll ci réew kon dootu jamono ju ñuy toog fii di lam lamé di wax jamono jëf lañu ñu toll yéen nag waa APR yor ngeen seen lammeñ sàcc alalu réew di jënd ay journaliste inondé les médias lu ne ngeen wax ko ci lu ñaaw ak lu bon recruter ay nit teg leen ci kanam ay écran ñuy bind suba ba ngoon jot waaye ay man kat rek di taw ma de moi je travaille pour mon propre compte amadou bala sénégal maa yónni sama bopp kon mu sell mi waxul ak man buñ ci tollee na ngeen dëggal seen bopp parce que réew mi ñoo fi dëkk nañu nañu ñoo dëkk ci réew mi bu ngeen foogee ni mun ngeen toog ci kaw nit ñi di leen imposer li ngeen leen imposer ku wax ngeen yokku ku wax ngeen saaga ku wax ngeen ni da ngeen koy tëj ndax ngeen seen bopp bu réew mi naree tàkk yéenay njëkk a tàkk foofu lañu ñu ci dëkk bi may wax nag particulièrement la jeunesse amul exception takku leen jóg foofu la ñu toll ay appel à insurrection nangam man ma wax ma wax ay jeunesse Macky Sall fogg na ni dem na out ay arme anti retail ay pour réprimer ay manifestation changer commandement fogg ni mën na no nit ñi nax na boppam dafa ne lu fi amoon dootu fi am gëm na lool ci mom surtout waye fitna ku ko tal do ci mucc te foofu lañ ci tollu ci Sénégal sen avenir nak le Macky Sall bëgg ak hypothèque ci tiaxan ndax lu toll ni élection nga ne coalition bi nga xamné tay tey moo ëpp doole ci Sénégal sénégalais am ci yaakaar nga ne ci ay pexe yoo xam ne laluwu ci dëgg di nga di ko génne ci élection bi yow dong nga dem ci élection loolu su ko sénégalais nangoo te foofu lay ndax wax toll nañ foo xam ne ku nekk dafa war a jël responsabilité lu waay nangu rek te di magum jëm na ko assumé du mbirum Ousmane Sonko du mbirum Massamba du maram mbirum Maremba dañoo toll foo xam ne kenn ku nekk dafa war a assumé responsabilité kon ndaje boobu buñ ko wootee na Sénégal yëpp génn nañ fa jël ay décision ci li ñu war a def su dee jàpp nañu matu ko ñun ñëpp ñu ne matu ko bu dee jàpp nañ ni mat na ko ñu xool lan lañ ci war a def toutes les solutions sont envisageables parce que foofu lañ ci toll lii laa bëggoon waxtaan ak yéen ci lu gàtt di daaneel ci wax leen nag ni ñu ngi essayé normal xel yi ñenn ñi sax ci biir opposition bi nga xam ne Macky Sall la ñuy liggéeyal bu ko gëmloo nit ñi ni yow wi askan wi mu ngi négocier Macky Sall mu desee kenn ku dul mës a négocier ak Macky man de Ousmane Sonko ci la bokk ñaandoon ak Macky Sall muy nekk opposant ba fal ko mu nekk ci gouvernement jox leen ay ministère ñu nekk ak moom mu leen di fay ay millions suñuy wax ñen ñen ñooy négocier opposition ci ñoom lañu war a dem xool ñun négocier wu ñoom Massi Macky Sall te àdduna du dox ba ñu négocier Macky Sall la ñu wax dafa leer benn élection bi kenn du ko dàq dinañ ko teg te dinañ ko amal ci délai bi mu war a amee ñaareel bi mooy loi bi nañ ko appliquer niñ ko war a appliquer su waree dal ci makki na dal ci Macky ci war dal waree dal ci Yewwi dal ci Yewwi su waree dal ci keneen dal ci keneen waaye def ni kumba am ndey kumba amul ndey loolu jeex na Sénégal loolu nag mooy li ñu waroon wax ci lu gàtt di anticiper nag di wax ci ñi nga xamné khalifa xalifa sall wax na ko Senegal sénégal dëkk bu metti la bo waxee ñu né dafa dëgër waxee ñu né wax ji neexul ñi nga xamné tank tànk ki yor bant ki yor yet bi tànk mu ngi yor yatam di dóore fi ñu toog duñ fa duñ fa buñ buuje duñu wax dé waye ki ñuy door bu fekkatoo rek ñu ne nitu ngi ni may wax yeen jeunesse sénégal bu leen déglu ñoo yeen intellectuel sénégal bu leen yéen transporteurs yi commerçant yi yéen euh, diaspora yéen keneen ak keneen bu ngeen ñooñu parce que réew mu mës a baax rek dafa am génération bu jël responsabilité foo dégg ñu ne révolution dafa am ñu jël seen responsabilité ñun wu ñu loolu waaye dañu ne réew mi charte yi fi nekk te moom moo may Macky Sall mu dem ba gañee élection Ablaye Wade nangu ko ko mu dem yoonam charte yooyu dañuy continuer appliquer ba 2024 bon saa gudd nag laa wax ñu ne keneen gagné na ci anam bu leer sénégalais yi wóor nañ keneen ba mu jël ay bagage am dem leneen lu mu bëgg a def nag yenn fitna te moom mooy ci ci moom ci boppam la fitna yi njëkk a dal lii la ñu bëggoon waxtaan ak yéen ci lu gàtt ngeen jéggal ma parce que dama jàpp ni dafa am waxtu yoo xam ne du waxtu nekk fii di laam-laamee barke yàlla jarul jégalu jarul jégalu yow sa jaam wàcc na yow <laughs> man man na moom leer na moom man xam leer na man nañ man muy Sénégal ba Sénégal daj Sénégal ba Sénégal daj laa wax de waa ji rek laa gis muy bañ Ousmane Sonko <laughs> kese kese laa gis muy bañ ku dul kii keneen ku ku ma doon xoolal da ngay tab dëglul sa waay ak di wax ay langage yoo xam ne déedéet Macky Sall xamul loolu tant que defuñu front jàkkaarloog moom li mu li mu yéene def dina ko def te administration dina ko nangu nangu na ko ba pare justice dina ko nangu parce que lan moo tax administration gaaw képp kuy opposant mu notifié la ci loo xam ne sax dëppoowul ak yoon tey ba tey ji notifié bul Benno Bokk Yaakaar lan moo waral loolu waa direction générale des élections kon Macky Sall ma bëgg a jëm suñ ko arrêté dina fa dem conseil constitutionnel dina valider liste am daal di suñu liste bu ko sénégalais yi nangoo nag man Ousmane Sonko dinaa ñëw toog fii ma toog fii coor gérer sama mairie jàpp sama ñàmbur ñu seetaan leen ak Macky Sall ba xam fu gët di mujjee wànnent ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> kaay fii kon noo fi wootee fitna hmm? kan kan moo woote fitna Ousmane Sonko mu sell mi Seydina Ousmane Sonko mu sell mi en tout cas de bu ñu Ousmane Sonko rëccee <laughs> xanaa yàlla dimbale wàññi comme que yàlla du jeexal. du xaajal mais en tout cas moom jamono ji moom l'heure est grave gars yi après nag